président Macky Sall ñëw na fi dem na Sibassor dem na Kër Socé fanaan na Kaolack euh, n'est-ce pas te ku xam fanaanu président ci dëkk ni mu amee importance dina recevoir responsable yi ñu wax ko problème yi fi nekk voilà mu noté ko loolu aussi am na importance euh, joxe na def na aussi cérémonie euh, de de réception euh, d'un important lot de matériel du PUDC euh, boo xamante ne ay machines yuy xolli gerteeg yuy bojjag yooyu des tout comme ça mu defee réception bi fële au niveau du département de Kaolack loolu daal moom lañu gis ñun maire yi du département de Kaolack responsable yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ak élus yi yi nga xamante ne ñoom ñoo ànd ak président Macky Sall ci APR ci coalition Benno Bokk Yaakaar ci grande majorité présidentielle loolu lañu gis vraiment ba ñun ñu pour vraiment gën ànd ak yéen daal bànneexu ci bànneexu bi ñu am ci bànneex bi ñu am ci visite bi nga xamante ne moom la président def euh, en tout cas euh, département de Kaolack. ndax am na ku nekk ci salle bi koo xam ne nee na génn na kaw la dugg fenn ci biir département bi ci tool yi mën a wax ne moom tool yi mu gis dañoo lompoñ maanaam yaatuwuñu te taaruwuñu te yaakaaru wuñu ndax am na ku mën a yëkk ci loxoom wax loolu ci saal bi. li ma gëm mooy déedéet bu fekkee loolu déedéet la kon li ma wax am na ndax bu jiw yi baaxuloon bariwul engrais baaxul bariwul matal bu bay loolu yëpp am ndimbal amu ci kon yaatuwaay bi du toll noonu taar bi du toll noonu yaakaar bi du toll kon lii mooy tontu bi ci président ñu ngi doon pour doxantu. ndax mun nga tere ko nga xam ne président moo tax ci ndimbalam mu am engrais am jiw. am dund pour nawet bi mu mën a liggéey président bi ñëw mu mu génn ci mbedd mi di ko wax jërëjëf te xam na ne président du ko sax xam ne mu sol maskam ndax dareem na ci waroon na koy tool mu fomm ko muy wis mu génn ñëw ne day wax président merci ngay lu tax muy génn di teertu président ñun li ñuy wax mobilisation bi mooy yëg-yëg la mobilisation bi ngeen gis ñu li ñu jàpp mooy yëg-yëg di ñi nga xam ne ñoom la président jàppale yëg moom lañ génnee noonu. président ay tool mais tontu naa kooku parce que homogénéité bi tool am maanaam maase mel niroo bi tool yi niroo maase bi nawet bi maase moo tax fu ci demoon rek muy benn te li may wax yeneen ci salle bi yeneen dem ci tool yi gis nga ñu ma gis. ci tournée bi nga xam ne moom la président Macky Sall soobu woon fii ci biir région bi. wax nañ léegi ci ay xam-xam loo xam ne du toog rek di waxal nit ay siibur la yoo xam ne nit ñi ñoo ko liggéey ay borom xam-xam saytu ko ba tënk ko ñu exécuté ko ci biir terrain bi président Macky Sall doxal boppam ci lu dul li wax léegi ci lu dul ay fiche ci lu dul dara la mooy moo doxal boppam dugg gis fi ñu def budget yooyu fan la dem mu saytul ko boppam ba gisal ko boppam wax nañ léegi ne fii ci biir département de Kaolack ku fi gis foo xam ne tey dañ faa langoon tool te nga gis ne melut kar macha allah ni mu a mel wan ñu fan ca loolu dëgg la yàlla suñu borom moo wàccee ndox waaye laata ndox di wàcc am na ay sabab yu président Macky Sall def moo tax tey mu rafet ba ñëpp mën koo xool président Macky Sall moomu nga xam ne budget bi nga xam ne at yu mujj yi rek la wax nga xam ne deux mille ñu ngi woon ci quarante milliards ren jii li ma wax léegi bi borom xam-xam yi wala gisaanikat yi tubaab yi. buñ bokkee na ndox dafa dana bari mu yokk budget bi yóbbu ko ci soixante milliards soixante milliards yooyu ku dox tey di sénégalais da nga xam ne loolu président Macky Sall teg na ko ci suuf si ku dox tey ci biir àll bi gis kaa macha allah tool yi ni ñu mel yàlla yàlla mottali ak ni mu bindoo da xam ne loolu mu liggéey moo ko def. liggéey moo ko def ci jiw mu set mu rafet engrais bu doy nga xam ne wax nañ ne soixante-dix mille tonnes joxe nañ ko ci jiw gerte joxe nañ cent cinquante mille tonnes ci engrais dama ne loolu bu ko suul ci réew mu mel ni xam nañ ne président Macky Sall am na fu mu leen teg fii tey nawet bi tollu ci fii ñu nekk tey ci région de Kaolack bu ñu yàlla defalee sutura te incha allah ak mag ñu baax yi ak doomi sang yi nga xam ne ñu ngi topp programme président Macky Sall yi di ko dimbale ci fépp fu mu jëm yàlla mën nañu dimbale incha allah ñu góob ko ci jàmm te buñ ko góobee ci jàmm incha allah yaakaar naa dina nekk njëriñ pour mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi dund tey suñu biir région di wax rek ne. du dañoo ànd ak président rek pour di ko tàcc déedéet dañoo ànd ak président Macky Sall pour di dimbalante ak moom pour di ko bàyyiloo xel ci foo xam ne du génn ci xelam wax naa démb ma ne région de Kaolack xaw ma benn région waaye région bu mag président Macky Sall di mën a fàtte ginnaaw ci jaar-jaaram ak fi mu juddoo ak fi mu yoroo ak fi mu jàngee ba fii mu toll. ak fi jaar yëpp ak contrat bi nekk diggante président Macky Sall ak région de Kaolack loolu nekkul lu président Macky Sall mën a fàtte benn jëmi jamono te heure bu nekk doy na leen rek ci cofeel bu mu am ci biir région de Kaolack wala bëgg buñ bëgg waa Kaolack amul lenn lu ñu def ci réew mi rek te du fexe ba dugal ci Kaolack amul heure bu jugee wala bu xalaatee def balaa wax benn ñaar région da dégg mu dugal Kaolack loolu cofeel la loo xam ne daf ko dund ñu nàmpatal ko ko mu nàmp ko waaye nangu ko gàll aussi fii rek ci biir commune de Kaolack nga xam ne mooy capitale département bi lépp fi defagum ci ay milliards tey rek si suba maa ngi xëy di doxantu ak yenn autorités yi di xool projet yi nga xam ne président Macky Sall tàmbali na ko ci fii biir Kaolack kenn xamul lu toll loolu du budget caaxaan moo koy def damay wax toujours ne kenn du wax ne liñ bëgg ci région bi yëpp am nañ waaye nag il faut ñu nangu ne ay régime lañ woon démb ak bokki démb waaye ci nguuru président Macky Sall ci lañ commencé daaxal ci kaw loolu il faut ñu nangu ko nangul ko ko taxawaat ci buntam nag pour mu dolli wala mu yokk pour yooyu mag loolu moom du ñu dañ benn jëmi jamono incha allah li taxaw ci buntam ndax moom la yàlla def ci loxoom tey sirru nguur xam nga ko xamul ni sirru nguur rek yaay diinga na tekk yàlla def muy nguur président Macky Sall doom la ko doom yépp waaye yàlla moo dagg ci cëram yi jox ndax nguur cërib yàlla la ku ko yor ku ne yàlla moo la ko jox suñu bëggee may suñu bopp jàmm ca noppalu ca bëgg réew mi ca muy dëgg nañ ko jàppale